asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki téléspectateurs yi almouridia ak ñi koy déglu ci rajo bi ñoo ngi leen di ziyaar di leen ñaanal jàmm ak tawfiq ak wér yaram di ñaan muxlidu raib wal xalib muy sëriñ Muntaxa mbakke moo ko waa kër Sëriñ Tuubaa yëpp ñu am jàmm ñoo ngi fii ci Mbàkke Bari Tuuba euh, fekk si sëriñ Jili Mbàkke moom Cheikh Sidi Moxtaar Mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ Jili Matilay ñu war a waxtaan ak moom ci ndigal li ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxe na ko yàlla na fi yàgg te wér muy liggéey bu ñu war a liggéey ci xasida ak Matlabul Fawzayni kon bala ñoo sori ci waxtaan wi dañ koy bàyyi mu nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare Cheikh Mouhamadou Lamine di nuyu diwaan bi nga xam ne ñoo daje tey kuréel bu mag bi di Hizbut Tarqiyyah te nekk nekk ca bopp ba di Serigne Youssou Diop di tàmbalim nuyoo rek ci alxalifatu am li taifati almuridiya nadduhu lah aljalil an yukallilahu najata walfawsa ila an yarisallahu al arda wa man alayha bi jaahi jaddihi al abar cheikh al xadim xadimi di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ko wér ba li mu yéene liggéeyal sëriñ Tuuba mu yàggale hmm. ko ak rakkam ànd kook rakkam yi te fekki ko ànd kook taalibe yi te yàlla gën a te gën koo may sago ba li mu yéene liggéeyal sëriñ bi lépp yegg barke Cheikhul Khadim jërëjëf sëriñ am na ñu fi jot jaar mm. ci xasida gi mm. waaye tey nag dañ ci am xaas mm. muy fekk si la fii ci Mbacke Bari mm-hmm. incha allah fas nañ la yéene laaj ñeenti laaj incha allah ci émission ñeenti laaj quatre question kon laaj bu njëkk bi mooy xasida gi nu mu tëddee xasida gi nu mu tëddee xam naa ba dañoo tàmbali nag di danañ def benn introduction bu ndaw rek ci sëriñ Touba mi nga xam ne moo waral xasida gi am maanaam ci nuyoo lañ koy sof rek daal di continuer ci laaj bi ndax day baax lool lii ñu yëkkati ñu war koo def ki ko def ban melokaan la yoroon hmm. ak yit nan la meloon ak yit ban yitte la jaxoon jaamu sun borom ak nan la ko nongule woon ak ci ci ci naka la ak nan la woon mu nekk model moom Serigne Touba modèle bu ñu ko waxee mooy koo xam ne jot na sëkk àdduna indiwaat Serigne Touba teg ko muy solution boo xam ne bu ñu bëggee àdduna tegu fi mu war a tegu dëgg faaw ñu indi Serigne Touba muy solution bi. Hmm. Eh, damay def jàngat yu bëree bare bëri. comparé kook nag ngeen bal ma ci français bi compare kook doxalinu Sëriñ Tuubaa mu leer ma ni doomu aadama yi ñu ci bari dañuy nelaw. dañuy nelaw damay waaw damay am benn xasidaam bu may liir eh, bu ñuy wax Fathul Xafaar. Fathul Xafaar. Uh-huh. ma fekk ci ma fekk ci mu bind ci eh, tusallimu nii min aklil xaram. tu tusallimu nii. min aklil xaram. loolu mooy la. wa saairil subahaat wal intifaa maanaam sëriñ bi dafa wax ni yàlla maa ngi lay ñaan lekk lu haram nga maa ngi lay ñaan nga musal ma ci lekk lu haram wasaa'iril subahaat mboolem yu lënt yi yu lënt yi nga xam ne dafay dugge ak lënt walla daan amin wa ak lënt da ca bi mooy saa'iril subahaat wala intifaa bi mooy jariñu ci ñaari xeet yu mel noonu ma ma ma xalaat lu mel noonu nag saayiru subaxaat nag bu ñu ko doon indi tey ginaar yi nga xam ne dañ koy importe di ko indi Sénégal yëpp ci da ciy dugg li nga xam ne nit da koy jëfandikoo tam nekk biir këram te xamul fu mu jóge da ciy dugg li nga xam ne tamit dañ koy rey te fekke woo reyu na xamul ku ko rey lu demee ne dibiteer yi nekk biir Touba ak xeet ya ci aju yëpp nga dem fa di ci di ci jëfandiku maanaam loole day dugg ci saayiru subaxaat hmm. li ma jublu nag ci indi loolu mooy dafa mel ni nit ki bu bu jógee ngir di taatan ak di raxas ndab ngir bëgg caa def dara faaw mu doon dara mu faw mu am lu mu doon ba noppi lu mu bëgg def ci boppam mu soog ko caa def ndax nit ki ndeke mënul am yàlla mukk wala mu koy wut te jiitalut lii fexe ba teet lekk lu aram ak saayirul subaxaati ak jafe jariñu ci yu mel noonu jariñu ci xeet yu mel noonu boo nekkee jëmm ju mat ci lool nag soog a sa ndab set na nga soog a nag wut loo ca def loolu waral ma andi ma ma njëkkee ma ma njëkkee loolu man loolu waral ma njëkke loolu sëriñ bi nag yàlla da koo mayoon loolu nga xam ne loolu tey bu ñu ko doon xool tey bu ñu ko doon tàmbalee faxas ci kër yi di ko faxas ci dëkk yi daanaka ku ci nekk mën ngaa wëq la nekk sa biir kër génne ko tàmbali waat tàmbali gu yees. Mm-hmm. ndax ku ci nekk rek am na lu lu dugg sa biir kër loo xam ne ba mu fay dugg xamoo ko ba noppi nag bëgg caa toftal jaam yàlla guñ guñ nangu. loole mooy xaw a nekk rëq-rëq sëriñ bi nag moom yàlla da koo dimbali woon mu teel a teet yu mel noonu teel a waajal boppam ci xeetu jàmm suñu borom boo xam ne su su jógee jëm ca fu mu ca bëgg àgg dana dana ko àgg ndax day waxuma la farlu ci jaamu gi rek waaye lii tey jaamu gi du nangu wala muy diis daa fexoon ba teet loolu lépp lu mat a bàyyi xel loolu benn la ci ñaareel bi mooy ci environnement bi mu war a jaamu yàlla suñu borom dafa am ay sart ci biirum dëkk yoo xam ne bu fekkee da nga faa bëgg jaamu suñu borom suuf ci jëmmi boppam dafa am sart ak ak yoo war a jox bokk na ci fi nekk nii boo bëggee doon dara cib dëkk maanaam li ñuy wax ni ku bëgg a doon dara cib dëkk faw ñeenti ñii moom nga làq seen ngërëm mooy da fa danga fa fekk mag koo xam ne mag la ñu koy tuddee ku mag ca dëkk ba fekk fa koo xam ne boroom xam-xam la ka fa ëpp xam-xam fekk fa ka gën a maandu ca dëkk ba ak ka gën a ragal yàlla ca dëkk ba ñeenti ñii bu ñu nekkee cib dëkk. sart la ci nga xamante ak ñoom fexe ba làq seen ngërëm ñoom ñoom ñeenti ñëpp waaye du doon nii danga leen di tëb rek jàll. Hmm. soo ko defee nag loo maanaam soo ko defee loo doon mën nga ko doon waaye nag na nga xam ne ay pexe la ko may waaye boo jaaree fi nga war a jaar ñii war nga leen a xam ñii war nga sàkku seen ngërëm ñaareel mooy jëmmi suuf si boo gisee nit ñi daan gàddaay nit yàlla yi day nekk ci suuf ba mu jàgg yëf yi xaw a të ñu dem suuf sa ci boppam suuf boo ca dëkkee mos cee jaay dara lekk jëfandikoo ko boo fa tur yàlla doo ko am mu nga suuf nga dëkk fa jaay ca suuf sa jëfandikoo ko ba noppi wëlbati ko di fa wut tur yàlla wëlbati ko di fa wut yàlla maanaam néew ma doo ko am waaye lu yeex lay doon pour am ko maanaam ñu bàyyi ko xel beneen ba ca topp mooy boo mosee mooy ca suuf sa boo dee wut yàlla ba noppi mosa mooy ca suuf sa ngi wute yàlla foofu dafa mën a amee yàlla loolu nag li tax ma jiital ko mooy maanaam mbir mbir yi ñuy waxtaan yëpp dafa lëkkalook loolu dafa lëkkaloo gis nga xasida gii ñu war a tàbbi ngir di ci waxtaane sëñ bi bi mu koy def yii ma la waxaat ci terme boobu la ko defee maanaam terme leer ci la ko ci la ko maanaam nga baal ma ci français waaye ci. xam na ci ci ci ci ci ci ci leer la ko lëkkale ngir ngir ngir mën a départ muy fexe na ba tàggat suuf si ba peese suuf si ba xam ni mu fi war a toogee ba suuf si nongul ko loolu mu wëlbatiku nag defar boppam ba nga xam ne moom si jëmmi boppam moom Seexul Xaddim wax nañ du lekk lu araam saairu subahaat yi tamit da koy wattandiku wala intifa bihi jëriñu ci xeet yu mel noonu tamit da koy wattandiku ba xam kan mooy ba xam boppam. xam boppam waaw xam na suuf si xam boppam. waaw xamee suuf si xam boppam xam sart yi suuf yi suuf si bañ mu mu mu bàyyi lool maanaam looloo tax mu doon li mu doon. léegi nag ki koy roy nag ki nga xam ne moom daa ñëw rek dégg sëriñ bi dégg bëgg war a mën a jëriñu ci xasida gi ginnaaw ndigal léegi yëpp nag mu ne da ci sóobu daal am ci lu mel noonu faaw mu jiital ñaar yee mooy suuf si da koy jox ñaareel mooy mu jox boppam àq tamit maanaam ci li mu war a jëflante yàlla suñu borom ci lu muy lekk ak lu muy naan ak yu mel noonu moo tax jaamu gi dëgg nag jaamu yàlla gi soo ko mën a bi ngir ngir mu woyof ci moom ngir yàlla mën koo nangul jaamu gi loolu mooy li jëkk su ma nee la nag sëñ bi ci leer lay conditionné mbiram sëñ Touba sëñ Mountakha mooy xalif général de Mouride am na ñoo xam ne buñ ñi ngi ci kaw suuf waaye suñ ko bëggoon a gis sax mën na leen a jafe Seexul Xaadim mi nga xam ne dañ koy yaakaar nag mu nekk maanaam fàddu ci sëñi bët maanaam leer leer lañ ko mën a gisee maanaam ci leer lañ koy gisee kenn du ko gis ci saahir leer googu moom faaw da ngay farlu ci jaamu yàlla bu wér mën a jaamu yàlla jaamu yàlla bu wér set wicc ci ay bàkkaar farlu ci sunu borom ba am li ñu tudde leer leer dafa am solo ci doomu aadama maanaam leer mooy jaamu sunu borom ba am cër ci yàlla sunu borom maanaam bañ ubbil la maanaam xayb yi nga xam ne dafa nëbboon yëpp alamtanil xayba xataa surtout muntabihan maanaam dañ lay ubbil xayb yi ba xataa surtout muntabihan lépp mel na lu leer ci yow loolu lii la ko man a may mooy sax ci leer leer leer kon moo conditionné Serigne Touba li tax leer conditionné ko nag mooy euh, waajaxani la wax. waa waajaxani. waajaxani. jamaalu baaxin kaana lii bilaa masaxatin wa sirri saana lii nee na bi ma jàkkaarloog yàlla suñu borom leerug suñ borom gi daf dafa ma identifié ci boppam maanaam leer leerug suñu borom gi dafa sar ci Serigne Touba ba jeex waajaxani jamaalu baaxin kaana lii. jamaal bi jalaal ji kaana lii ma masaxatin wa sirri saana lii maanaam xaada liyal jamaalu bil jamaali wa xaada lil kamaalu bil kamaali mooy mooy yàllaa ko wommatal leer bi mu tàpp ci moom loolu li ma ci jublu mooy euh, ci métatu leer boobu ci identification bi nga xam ne suñu borom identifié na ko leeram bi mu jàkkaarloo ko moom moo tax température Serigne Touba ci gis-gisu saxir di luy jafe yenn nit ñi yéen ci boppam gëstu ngeen ni sëriñ bi ñaare boo ko masaan bett dina yor melokaan wudul melokaanu nit ñii dañ koy bett di xam ñii dañ koy bett am melokaanu mel loole nag leer gi la leer gi da ci da ci joué maanaam leer googu waxtu nekk sëriñ bi day taqoog moom te ci lay dox dem na ba yàlla suñu borom wormaal ko worma joo xam ne bu nekkee ci benn barab moom sëriñ bi mooy suuf yi nga dégg ñu ni ma nga fa yëpp juróom-ñaari kilomètre ci wet yi nday joor boo ko jëlee sa càmmooñ ci kanam ak ci ginnaaw wet goo mën a jël ci xibla yi ci ci ci ci ci ci li ko wër yàlla day tàggat suuf su juróom-ñaari mètre juróom-ñaari kilomètre yu nekk sëñ bi da koy tàggat ba ab moykat bu fa duggoon leerug sëriñ Tuubaa gi dana tax sax doo mën a moyet yàlla suñ borom hmm? waaw loolee sëñ yàlla jagleeloon sëriñ Tuubaa suuf su mu dugg bu fa ganesee rek dafay identifier suuf si ba suuf soosu boo ko doon misaal fu mel ne tubaa fu mel ne Njaareem fu mel ne dëkk yi nga xam ne sëriñ Tuubaa yàgg na faa yàgg da ngeen gis ne fa mu yàggoon a kus néew la ko jëm ci côté ndeyjoor jëm ko ci côté yeneen jëm ko ci côté yeneen yëpp dafay mel ne dañ koo dàqal mboolem moykat ak mboolem nanga moo tax aw dëkkiin ci wàllu loo xam ne yàlla gërëmu ko wala yàlla nangu ko du mën a dëkk ak moom loolee fi ne lu mat a bàyyi xel la loolee ci leer googu nag wax na ne euh, lubbi mun nawar lubbi waaw mun nawarun bi nóoril wax yi jooju kon day ñëw lu bii lubbi munawwarun bi nooril wahyi wa xaadale xayral ulumil wahyi manaam condition yi muy doxee température bi muy doxee ci leer maanaam leer wax yu ba yàlla joxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko ci tibbal jox ko ci loo xam ne ci leer googu ci lay dox leer googu fi ne moo continué ba moom même bu fi nekkul ku ko fi nekkal leer googu day continué yaqudu lil ilhaamu wa tawfiqa man kaana li xalifata rafiha ci ilham lay dox ku fi nekk ah, loolu ma ko wax waaw loolu boo gisee ma di ko leeral dafa dafa dafay dafay am solo nag ci ginnaaw bu saaxir jeexee dafa am lu sëñ bi ndax dafa am loo xam ne nit ki bu demee ba feebar junj lay man ñu naan ah moom de mënut a wax de day junj ci junj rek lay mën a xamee nit ki li ngay wax ñu dem ba junj bi jeex mu faatu léegi nit ki bu nekkee ci bàmmeel tey bu nekkoon ci bàmmeel maanaam ba tey scientifique yeeg borom xam-xam yi waxaguñ ni ñaar malaake yi laaj nit ki ci bàmmeel ban langage la ñuy wax moom ci ban langage la ñuy wax ak moom loolu tamit lu mat a laaj la ban langage la maanaam malaaka yi laaj nit ci biir bàmmeel ci ban langage la ñuy wax moom léegi loolu lépp day dugg nag ci day dugg ci leer rek ci kun maanaam ci leer maanaam ci leer mm-hmm. maanaam ci leer dafa am diggante bu gàtt boo xam ne li koy doxal lépp li koy condition lépp leer moo koy conditionné. du doon wax mais leer lay doon. du doon wax du doon kàllaama daan maanaam waaye waaye leer lay doon moo tax sàkku yàlla wut yàlla di lu baax kon loolu rek lañ doon andi maanaam allah maanaam loolu tamit nag mooy tax nga man a identifié wu ci boo doon wut xam-xam ak boo doon wut yàlla ak boo doon wut euh, euh, maanaam ngir am xam-xamul xaybu maanaam ak yeneen xeet maanaam nuurul asraar yeeg mboolem xeet yooyu pour nga mën koo am leer moo ko identifié leneen mënu ko identifié maanaam muy lu ama am solo loo xam ne nit ñi dañ ko war a bàyyi xel leneen mënu ko identifier lu du leer leer googu nag dangay ngay jaam yàlla ba àggaf ci maqaamam leer googu lu mat a bàyyi xel la waaw lu mat a bàyyi xel la <laughs> kon ñu dugg ci sab laaj waaw loolu rek lañ doon indi ci sëriñ bi waaw ñu dugg ci sab laaj yaakaar naa laaj bi nga laaj bu ma fàttewul nga fàttali ma ko waaw nu mu tëddee mm. nu xasida gi nu mu tëddee diggante baaxar beeg waaw xasida gi ñu nam ma waxtaane moom mooy matlabul fawzayni matlabu fawzayni matlabu fawzayni mën nañ koo tuddee al fawzayni mën koo tuddee nooru daaree ni mën ko tuddee sànqal daaree ni maanaam mooy maanaam texek àdduna ak texek àllaaxira xasida gi nag sëñ sëñ sëñ Lamin borom da cee sonn lool. da cee sonn. waaw maanaam da cee sonn te ku am yëg-yëg ku am liñ naan basiratul xal bi dafa am lu tuddee basiratul xal bi lu ñu tuddee basiratul xayni basiratul xal bi mooy ngay am ay. dimension yëg-yëg ci mbir mu man di doon mën a identifier nit ki nga xam ne yaa ngi koy den identifier ci basiratul xal bi basiratul xay ni boo ko xoolee bu mu sol da nga koy gis ci basiratul basiratul xay ni bu weexee nga xam ko bu ñuulee nga xam ko bu bulaa nga xam ko basiratul xal bi nag mooy li ñu doon waxtaan sànq ci lañ mën a identifier doomu aadama maanaam doomu aadama bi ban température la am ci jaamu suñu borom loolu leer moo koy condition léeg-léeg nga dégg ko waaye sa waa ji dafa am baatin ah, dafa am nangam mais dafa am jaamu yàlla goo xam ne boo ci nekkee léegi ku jàkkaarloo teg yow wala kuy ñëw ci yow bu toogee da nga koy mën a identifier automatiquement ci leer leeru suñu borom xam ba xam ban cër la am ci suñu borom maanaam bu dee bu moykat automatiquement danga koy xam ci leer googu nga koy identifier ba xam ko loolu lu mat a bàyyi xel la loolu lu mat a bàyyi xel la te loolu kuy jaamu suñu borom rek bu yàggee melokaan ku dul jaamu su la da nga koy xam da ngay dem a dem a dem ba àgg sax ci da ngay dem a dem ba àgg ci maanaam xam ñaata pour cent la sax la am ci moom ci jaamu suñu borom 10 pour cent 20 pour cent 50 pour cent 60 pour cent da koy mën a xam ay état bi ay ay état bi dimension yi leer la. loolu lu am solo la mboolem gaa yi yàlla yépp sax mën nañoo nangu ni ci leer yooyu may waxtaanee ci la ñu mën a identifier nit ba xam kii cër bi mu am ci yàlla suñu borom. Hmm. loolu day dem ba day dem ba. tarbiya tarbiya bil xaal boobu nga xam ne nit ki da nga koy gis ne waaye kii dafa nurab jaamkatub yàlla yooyu yëpp ci loolu rek lay dugg loolu lépp ci loolu rek lay dugg su ko defee Matlaboul Fawzayni sëriñ bi maanaam da cee sonn lool tamit nag xasida gu mag tamit xasida goo xam ne mën naa ne la pro projet la projet société boo xam ne ñu bari dañoo jàpp ni Sénégal ko tax a jóg wala mouridisme ko tax jóg mais àdduna bu ñu tënk woon ci projet bii ni Serigne Touba tëralee mat la bu foo sëy ni te man amaan na ci beneen gis-gis boo xam ne maanaam maanaam mat la bu foo sëy ni waratut a yem ci langaasu arab bi kese war nañ ko mën a mën a mën a mën a mën a def ci langage yu bari bu noppi defal ko benn programme spécial boo xam ne projet société lay doon bu fiable boo xam ne dañ ko yóbbu ci monde bi yépp xam nga tey ki jàng nasaraan bi nga xam ne jàngul lu dul français waroon ko mën a andil programme li sëriñ euh, programme mu société bi nga xam ne pro bi nga xam ne sëriñ bi dëxëñ na ko ci biir xasida gi yëpp jàngal ko ko defal ko plan pour mu xam li sëñ bi doon ñaan ak li sëñ bi am ndax sëñ bi ci yéene la ko ñaane da koy yéene ci da koy yéene ñaan ko bi mu ko ñaanee yàlla nangul ko ko bi ko yàlla nangulee ba noppi won ko ko nag ci Touba nga xam ne ñëpp duñ ko ñaan fekk wuñ ko woon waaye ñun ñëpp dañoo dem ba ubbi xasida ne waaye ndekk lii la sëñ bi doon ñaan ah. amul lu ci sëñ bi ñaan te actuellement ni sëñ bi nangu yàlla nangoo ko fi ñu toll nii te jamono yam ko doon ñaane nag nañu bàyyi xel ni ñaan yu yii jàppoon nañ ni pour mu yegg si Touba ku gudd fa dëgg-dëgg moo koy fekke waaye lépp yegg si na tey te loolu dinañ ci yegg si Matlabul Fawzayni mi ngi tënku ci deux cent trente six bayit la ko la tënku maanaam deux cent trente six bayit mooy ñaar téeméeri bayit ak fanweer ak juróom-benn ci la ci la tënku maanaam correspond ak tur bi ñuy wax kun fa yakkoon kun fa yakkoon waaw kun fa yakkoon sëñ Tuubaa boo demee ci xasidaam yu bari al al muqayyad al quran la koy tënke ay alquran yeeg même bii nag moom dafa seet ci turu suñu borom yi bii nga xam ne moo ci gën a diis booy xool moo ci gën maanaam euh, làmbaayoo ay mbir mu mu dëppale ko tur yàlla woo muy kun fa yakun allahu kun bi xaqi kun muhammadun kun fa yakun ñi nga xam ne ay ay ay yàlla dogal na ñuy ñuy liggéey ci kun fa yakun xam nañ dimension bi kun fa yakun am am na ñu koy liggéey trois cent am na koy liggéey euh, quatre cent quarante quatre fois allahu kun bi bi xaqi kun muhammadun kun fa yakun loolu rek buñ ko boo ko doon def subaak ngoon maanaam euh, kun fa yakun bii allahu kun bi xaqi kun muhammadun kun fa yakun 444 fois suba 444 fois ngoon soo koy def rek li ñu doon waxtaanee léegi lépp day leer ci yow parce que da ngay gis léegi da gis li xew war a xew kon sëñ bi ci tur la ko indee mu mu toftaloo nag ci yu bari yoo xam ne ci baxru rajas la ko sëriñ bi wooyee ah, baxru rajas ci baxru rajas la ko sëriñ Tuubaa woye waaye ci terme baxru rajas bi mu ko wooyee dafa raar maanaam boo gisee lu mel ni nooru nooru daaree ni ak bisri jaalibatul maraaxib ak yenn xeet yooyu sëriñ bu woyee nu mel noonu népp ak jasbu bu ak mawaahi bu naafi moom da koo beral lu demee mawaahi bu naafi ak jës bu maanaam ter maanaam jës maanaam comme xasida yi ma njëkk a tiim ma njëkk lim muy nooru daaree ni ah. ak mafatihul bisri ak jaalibatul maraaxib ak fawzayni bii maanaam ñooñu ci ci ci ci ci ci baaxru rajas bi leen sëriñ bu woyee dafa wuuteeg baxru rajas bi mu wooyee bu ak mawahib ndax boo demee ci bu dee ci bu dee ci jës bu dee taysiir sax ci noonu la ko wooyee moom it ak nuuru daarini ak jalibatu maraaxib waaye nag boo demee ci jës bu dafa dindi jësbu bu baat yi dee juróom benni baat dafa indi juróom benni maanaam mustafilun dafa dafa dafa dagg dafa dagg ñeenti mustafilun yi bàyyi fa ñaar bu dee ci bu bu dee ci bu naafi nag day dindi juróomi mustafil lu ñuy bàyyi ci benn waaye nag bu dee ci baxru terme rajis terme baxru rajis bii mu woyee fawzayni moom dafa exceptionnel maanaam bokkut ak ni mu woyee ni mu woyee baxru rajis loolu moom mbirum Sëriñ Tuubaa maanaam baxru rajis bi mu ko woyee farmu baxru rajis xëy na ci kanam dina ñëw baxru rajis bi mu ko woyee dafa raar ci baxru rajis yi xëy na ci kanam dina ñëw kon xasida gi mi ngi ko way ci juróom-ñaari fan la ko way ci juróom-ñaari fan ñaari fan. xam nga dafa am ci riwaaye yi ñu ni bisub altine xam na am na fu ko dudd sax daa mel ne fu ko fum ko fu ko junj di wax ni maa ngi ko yàlla yàlla nga may ci bis bi mm-hmm. ak ci daraje wajaahi man wulit fii ok ak ci ki nga xam ne judd na ci bis bi am na ñu ne bisub dimanche la ko tàmbalee way waaye loolu tamit dafa am ñaari mbir yoo xam ne da ci mata seetlu mooy gis nga préparation bind dara ak préparation liggéey dara mën nañoo duggante maanaam mooy ñi jàpp ñi jàpp kii bi ñi jàpp nga dimanche bi sëriñ bi mën na koo waajalee dimanche altine dugg ndax saabu bu timis jotee altine dugg altine dugg xëy na ñu bari nag da ngay gis ñu andi ni dimanche la bu timis weesoo altine ci dugg na moom it ñu jàpp ni altine jooju am na ñoo xam ne liñ liñ jàpp tamit mooy dimanche la ko sëñ bi commencé way ba samedi mu jeex am na loo xam ne loolu la loolu tamit xam nga dañuy dañuy dañuy dañuy leeral rek pour pour pour ñi xam ne xamul ñu xam sëriñ bi mi ngi ko way ci juróom-ñaareelu maanaam juróom-ñaareelu weer ci weeri musulman yi. juróom-ñaari fan ñaareelu weer. waaw muharam rabiu awal rabiu saani jumaadul ula jumaadu saani ak. safar safar. muharram safar muharram safar rabi aw rabi saani jumaadul ula jumaadu saani ak rajab muy juróom-ñaar waaye boo demee ci am na benn téere boo xam ne xalil ibnu maanaam xalil xalil ibnu ahmadul farad yi moo ko def maanaam boo demee ci maanaam téere boobu nga xam ne da caa dajale baxru yi ci juróom-ñaareelu baxru yi maanaam boo waññee benn ñaar ñett ñeent ba ci juróom-ñaareelu bayit ya bi ci juróom-ñaareelu baxru bi juróomi ñaareelu baxru boobu maanaam euh, baxru rajas da cay nekk juróomi ñaareelu point baxru rajas maanaam baxru yi boo andee boo andee baxru rajas baxru baxru boo andee baxru tawil baxru madit baxru basit waafir kaamil asaj rajas maanaam juróom-ñaareelu juróom-ñaareelu baax point la cee doon juróom-ñaareelu baax la cee doon kon loolu tamit lu kiimaane la waaye boo demee ci alquran mul kitab maanaam juróom-ñaari aaye la muy fatihatul kitab juróom-ñaareelu aaye la boo demee si juróom-ñaari asamaan boo demee si juróom-ñaari suuf boo demee si juróom-ñaari maanaam juróom asamaan sëñ bi daan daf ko indee rek li li ñu bëgg a jàngale foofu mooy dafa indi maanaam ci da koo dëppaleeg la gën a baax la gën a baax rek la ko sëriñ bi gën a dëppale mi ngi ko mi ngi ko mi ngi ko taalif tamit ci Touba ci kër sëriñ Saalihu gi fii kër sëriñ Saalihu nekk fi la taalifi xasida gi waaye bi mu koy taalif tamit maanaam trente-trois ans la am ci saaxir fanweeri at ñett la sëriñ bi am mi ngi ko taalif ci mille huit cent mille trois cent ci gàddaay gi tombek maanaam 1888 yaakaar naa ci at moomu moom la sancoon Touba bu ma juumul mhm. kon loolu rek dafay wane dafay wone dafay wane maanaam njàmbaar sëriñ Serigne ak it maanaam ki nga xam ne moom la doon ak maanaam waajtaay wi nga xam ne doon na ko def ngir sóobu ci liggéey bu rëy boobu kon loolu mooy li nga xam ne mooy xasiida gi mat la bu faw sëy ni bis biñ ko bind Mm-hmm. ni mu correspondé ak tur yàlla woon ñaan kun fa yakun mm-hmm. ak euh, juróom-ñaareelu weer wi mu tombeel ak juróom-ñaareelu maanaam kun fa yakun ba limee araf yi juróom-ñaar la lay jox juróom-ñaareelu fan 1880 1307 la ko taalif ci gàddaay gi yemook ci atum tubaab 1888 1888 kon loolu tamit lu am solo la wax nañ ni xasida gi ku koy jàng ku nekk guddik ajjuma ci guddi li sëñ li gis sëriñ tubaa di jafe jafe jafe boo koy jàng guddik ajjuma da nga gis sëriñ tubaa guddik ajjuma xasida gi kon loolu mooy maanaam jëmmi xasida gi léegi nag li tax xasida gi borom bind ko dafa wax ni auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maqsadu xasidati maanaam jubluwaayu li tax ma bind xasida gi li tax ma bind xasida gi mooy adduha wa sukur isa saalaka ibaadi anni fa inni xaribun ujibu daxwata daahi isa daxaani loolee ca la ko tàmbalee muy duwaaw as sukuru sukuru gi la in zakartum la asidanakum ana addahuka wa askuruka moom la wax lakal hamdu wa sukuru ala dunia wa alal axiri fa salli wa man adduna ak man dama lay sant kon ci duwaaw wa sukuru la bind xasida gi jaali insha allahu taala li saydi wa nasri ak dolli ak ndimbal wax ya maqbulatun fi maskani xaa'ilee xarasaha llaahu maanaam xasida gi lu ñu nongu la lu ñu wax la lu ñu wax la ci dëkkub ki ko doon wax muy seexul xaddim ci dëkkub ki ko doon wax xarasaha llaahu taala min kulli makruhin wa maqufin bi jaahi man xaajara maanaam alxaayil maanaam eh, min kulli makruhin maanaam ci bépp pexe wa maqoofin ak lu ñu ragal bi jaahi man xaajara alxayil maanaam ki nga xam ne maanaam ki aji bind ji mooy seexul xaddim ki nga xam ne gàddaay na jëm ci dëkk bi mu ko doon waxe ngir dundal sunna saydina muhammad mhm. sallallahu alayhi wa sallam mooy seexul xaddim kon loolu mooy interdiction bi nga xam ne mooy jëmmi xasida gi xëy na bu ñu àggee ci kanam tuuti. Mhm. ñu wax nag léema yi nga xam ne xëy na. moom la ci booleel loon ndax ab dëkk boo koy sanc tamit Touba melutoon nii amoon na noo xam ne meloon na ni laata ñu ciy dugg euh, maanaam laata sëriñ bi di ko sanc lënd mën na laata sëriñ bi di ko sanc amoon na yu tax mu koy wax su la neexee tamit loolu mën nañ koo njëkkee avant laaj beneen biy ñëw su la neexee ñu continuer mhm. ci beneen laaj bi waaw. jërëjëf kon dinañ ci ñëw. léegi dama bëggoon ñëw ci. beneen laaj boo xam ne dafa jëm ci tawféex bi xasida ak Matlabul Fawzayni am ak melokaan bi sëriñ bi làmboo ci biir xasida gi waaw sëriñ bi moom dafa wax euh, tawféex ji mooy dafa dafa am mbir yu yéeme yu sëriñ Touba làmbool ci biir xasida gi bi mu koy woy ak i dimension dimension yoo xam ne sëriñ bi am na ko xam nga dafa wax ni wa ahli nii wa ahli man yohinu nii yàlla yàlla nag ma kawel te kawel képp koo xam ne mi may dimbali ci dëkk bi te kawel képp koo xam ne mi ngi am yéene ànd ak man ci yéene ji ma am ci dëkk bi wal takk fi nii jumlatama yohinu nii te fegal ma képp koo xam ne damay jéem a doya dal biir dëkk bi wala koo xam ne sama jubluwaay ak li tax ma sos dëkk bi xamu ko yàlla maa ngi lay ñaan daan képp koo xam ne jóg nga ngir yëkkati lii may jéem a yëkkati yàlla na la yàlla yàlla ñu yàlla boole yëkkati yàlla nag ma fegal nag képp koo xam ne nag dangaa ngaa jóg ngir doyadal lii may jéem a yëkkati loolu la mooy mooy kii wa fi taalimi wa fi wa fi wa fi wa fi wa fi maanaam biñ koy def barab bii biñ koy def jàng ak jàngale maanaam moo tax ma def ko maanaam nga xam ne ñi fi nekk ñëpp sart bi mooy dëkk bi sëñ bii sant sanc dëkk bii ku ci nekk gàll na la ci sew loos ni war ngaa toog li leen wax ni baa ñu naan baa ñu naan siin ñu naan mimbar ñu naan mimbar ku ci nekk nag géer kenn génnu ci hmm. kon loolu mooy jàng ak jàngale la sëriñ bi sanc dëkk bi wa lii istixaali bi hudal maxlum maanaam dëkk bi ku fi nekk ku nekk dara warul nekk sa yitte dara warul nekk sa soxla lu dul tënk ci njub jub googu nag da nekk njub xam-xam maanaam bu mu nekk génn njub lu dul njub njub xam-xam mu ne demoon naa sax wakkitulil amdaahi wal itraayi hmm. demoon naa ba demoon naa ba man sëriñ tubaab bu ma toppoon lii ma nit ñi wax naan sëriñ bi amul moroom maanaam di ma tagg wal itraayi rek di ma jay ah. asadu dëddloo na ma fi tawaalif wal iqraa yi maanaam damaa demoon a demoon demoon ba nga xaw tuuti ñu yàqal ma ba jot gi ma amoon ngir toog di jàng sama dog sax wala may toog di taalif demoon nañ ba xaw tuut ñu yàqal ma ko ngir jaxasoo gu ñu jaxasoog man ak tagg guñ may tagg ak jaay guñ may jaay loole nag man dama ci amaat beneen jàngat mooy léegi xoolal li sëñ lii sëñ tubaab doon wax nii lii léegi ci jamono jii ñu nekk looloo xew mooy kenn xëyatul jàng sab dog te nit ñi sax yàlla dafa dogal ñoom liñ gën a bëgg ci àdduna mooy ku leen tagg ak ku leen jaay ku leen tëggul amuñu ak yow affaire ku leen jëyut amuñu ak yow affaire sëriñ bi nag ni maa ngi ñaan ci dëkk bii maanaam ñi nga xam ne dañ fee nekk te it loolu rek di seen yitte yàlla na nga leen yàlla na nga leen wëlbati bañ bokk ak man gis-gis nga xam ne duñu duñu soxlawaate ku leen tagg duñu soxlawaate ku leen di jay te danañ sax ci li ma bëgg muy ak njub fii wax na ko fi mut ni ani seytaane yaa jalilu wa maskani wa kullu ma yàlla maa ngi lay ñaan maanaam yàlla nag ma musal ci seytaane yow sunu borom wa maskani wa wa maskani wa kullu ma ahulu maanaam ci sama dëkk bii maa ngi lay ñaan képp koo xam ne njaboote naa la yàlla na ko musal ci seytaane ak jeng jëm ci lu baaxut waj bu laxal xayra min al jihaati asiita wakfiha anil afaati yàlla maa ngi lay ñaan nga may maw xi maa nga ñoddil maw xéewal ñaanal na ko ca san ihsaan ilay a munaajahaati maa ngi lay ñaan nga ñoddil ma xéewal yu bëree baree baree bëri ci wàllu wu man di doon xéewal yooyu ma lay ñaan nag dama lay ñaan mu jóge ci juróom-ñeent maanaam maa ngi lay ñaan mu jóge ci sitta yi maanaam juróom-benn yi nga xam ne yaakaar nañ aw yiw di fa jógee muy ci ndeyjoor ci càmmoñ ci kanam ci ginnaaw ci suuf ci kaw loolu mooy juróom-benn yi Sëriñ Tuubaa yi ñaan kon loolu mooy képp koo xam ne yaa ngi biir Tuubaa gi war ngaa am melokaan woow yi sëñ Tuubaa doon melowoo loolu yi nga xam ne sëñ Tuubaa da ko doon jàngale ngir ñu war ñu war cee ñu war cee ñu war ci nii dënkam rek waaw kon loolu lu lu lu lu lu lu mat a lu mat di bàyyi xel la wal istixaamatan ala alhibaada wal kasfa wal hiyaala wa sahaada yàlla maa ngi lay ñaan nga nga saxal ma ci njub saxal ma ci jàmm suñu borom maanaam teg ma ci yoon woo xam ne du ma wàccu mukk di la jàmm kon loolee bu koy ñaan saa boo ko déggee yow miy jàng xasida gi xamal ne am nga soññi ndax sëñ baa nga ca woon sëriñ Tuubaa moom maa nga ca woon mhm. kon ñun ñi ñoo ci nekkut mhm. ko bàyyi bu baax a baax a mhm. <laughs> léegi ñu ñu ñu wéyal ñetteelu laaj bi dafay jëm ci lan lañ mën a nan lañ mën a ràññee xam nga xasida ko nekk am na xaas xasida yëpp a yam yëpp am nañ xaas mais nan lañ mën a ràññee xaas yi mas Matlabul Fawzayni par rapport ak yeneen xasida waaw xaas xaas xaas gi mu am mooy maanaam xasiida gii de man ci li ma fekkee laa mos a gis xasiida gu xalifa général joxe ndigal publiquement publiquement publiquement waaw ñëpp ni dafa jox murit yëpp murit bu xëyiti balaa ngaa def dara na nga ko jàng xasiida Sëñ Tuubaa yëpp xaas la maanaam gu ci nekk rek xaas la waaye bii dafa am xaas ci biir xaas bii ji jii ñuy waxtaanee nii dafa am xaas ci biir xaas fi mu wuuteeg yeneen xaside yi ci des xaas ki mu am ci biir xaside yi mooy moom rekk ci nekk projet société maanaam li tax dëkk dox moom képp ko ci am maanaam moom bi ko sëñ bii bind ci détermination ak dimension la ko bind <laughs> moom sëriñ tubaa bu doy war nag boo xam ne du saaxir si rek nga mën a jàng ni xaside gi fi nekk nii maa ngi la koy wax sànq dafa bokk ci faratay xasida gi ginnaaw bu ci sëñ Muntaxa joxe ndigal nga xam ne farata la ci léegi ci bépp murit ñu ngi ko doon waxtaanee léegi ci bépp murit farata la ci yow ngay jàng Matlabul Fawzayni waaw ñu dolliwaat ci nag ci biir farata jooju ñun ñu ko mokkal dong du farata ci ñun xam nga liggéey bi dëgg-dëgg lan la hmm. fexe ba bi ñu jotee ndigal ci sëñ muntaxaa bi ñu jotee ndigal ci sëñ Muntaxa ngir mu joxe ndigal ni xasida gi murit yëpp nañ ko jàng yow na nga xool ñaata nit nga fexe ban mokkal ko ak ñaata nit nga fexe bi biñ ko mokkale ñu xam lu muy firi. ñu xam lu muy firi. waaw parce que xasida gi même boo ko doon jàng xamoo li muy firi xamoo ko dimension Sëñ Tuubaa ndax xasida gi dafa mat moytu ndax xasida gi fekk xamoo lëgg lëgg xasida gi mënoo mënoo mënoo wattandiku jafe-jafe yi nga xam ne yaa ngi koy dund biir Tuubaa ndax danse bu nekk mën nga ko dund biir Tuubaa te loolu moo la koy teg ñàkk xam war may Tuubaa ndax sëñ bi da koo ñaan fii am na fu mu yàlla maa ngi lay ñaan ci biir xasida gi képp koo xam ne nar ngaa ñëw ci dëkk bii di fi def naka su dul noonu nag ma ko fi jëlee kon ko ki nekk ci biir dëkk bi def lu ko neex loolu danañ ci ñëw ci kanam ki nekk ci xasida gi ci dëkk bi di def lu ko neex xëy na xamul li sëñ Tuubaa ñaan sëñ Tuubaa préparé na dëkk bi ba noppi ci lépp dañ fi yàqoo rek waaye kenn du yàq dëkk bi dem na ba dugal ci ñi nga xam ne façon yëpp préparé woon na ko moom sëriñ Tuubaa kon ndigal la ci ñi nga xam ne dañoo jiite ay kuréel yu mag ñu leen tudde ay ahlu xasida wala ñu leen tudde ay mbootaay wala ñu leen tudde ay dayra ku ci nekk nag léegi farata la ci yow nga jël décision bu mag ci ndigalul mun Muntaxa lii mboolem ñu bootu ca mbooloo ma te mënaguñ ko woon sax ñu jëm ko mënagu woon ko dañ leen ko loolu farata man gi moom farata la maanaam di leen ko jàngal ñu mokkal ko loolu mooy farata ji ñi ko ñi nga xam ne fekkoon nañ nag ñu mokkal ko di ko jàng ñooñu moom ndim lu dolleeku ci ñoom la maanaam loolu dafa dolleeku ci ñoom re moom ndax yomb na ci ñoom ba noppi waaye li tax sëñ ay joxe ndigal mooy dafa bëgg murit bu nekk la wax néewut ñu ko man dafa joxe dafa joxe murit yépp jóg gone gu ndaw gi nekk sa biir kër am juróom fukki at ak ñaar sax da ngaa war a fexe moom mokkal xasida gi di ko jàng saa bu xëyee war muy ndigalul sëñ Muntaxa <laughs> waaye da ngay gis xam ne dañuy nekk ci biir dayra ni fukki ñi mën nañ koy fukki yee mënuñu ko kon ko mën nañ koy jàng déedéet loolu du ndigal li ndigal li mooy mbooloo mu ànd mu nekk toog ñoom ñëpp ku ci nekk war naa yor mat la bu fa di ko jàng saabu bu loolu mooy farata yi mbooloo moo gis ñuy dox loolu mooy farata ji loolu mooy loolu mooy farata ji wér ndax ndigalul ndigalul sëñ Muntaxa du digle lenn loo xam ne gënul ci ñun du digle lenn loo xam ne ab jotul mu soog koo digle te dëgg yi bis boo koy bis boo koy taxoo di ko jàng di ko firil sa bopp da ngay dem ba yow danga naan da ngay dem ba yërëm sëriñ Tuubaa da ngay dem ba yeddal sa bopp ci biir dëkk bi dangay dem ba tuutal sa bopp ci biir dëkk bi dangay dem ba xam ne yaa ngi ci danse bu rëy ci ni nga nekkee fi ci biir dëkk bi kon bu sëñ Muntaxa jékki-jékkee joxe ndigal mi ngi gis lu rëy luy ñëw loo xam ne bëgg na nit ñëpp mucc ji mu bañ ñu yegg ci loolu mu joxe ndigal ci xasida gi bëgg murit jëpp di ko jàng kon loolu lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la ndax yaakaar naa am na fu mu koy waxee fii ci biir xasida gi am na fu mu koy waxee fii ci biir xasida gi an taj xalaka maanaam addoxoo ko an taj xalakoo daaru tuqaa waaw daaru tuqaa mooy kërug ragal yàlla wal ilmi ak dëkkub xam-xam wa diin ak diini wa daara lirtixa ak dëkkub yëg ci jëm ci sunu borom wa jannatan li salikil muridi nga def ko àjjana joo xam ne ku nam ma dem ci yàlla sunu borom ku nam ma dem ci yàlla sunu borom muy sa àjjana ci ni ngay doxe ci ni ngay jëfandikoo ci dëkk bi ci ni ngay jànge ci ni ngay xamee ni ngay doxe ci dëkk bi wa junnatun muy ab pakk nag xanaa atikin ci kuy xotti war may dëkk bi ah. xanaa atikin ci kuy xotti war may dëkk bi ah, gis ngeen kon léegi lii la Sëñ Muntaxa doon tere coow yi fi doon am ak laata muy am ak ndigal lii la doon joxe bañ lii dal leen Sëriñ Tuubaa moo ñaan ni na ko def mu nekk pakk boo xam ne xanaa atikin ci képp koo xam ne da bëgg a jóg ngir xotti war may dëkk bi <laughs> marit bi mooy ku ku féttarle koo xam ne li sañ bi diglee sañ Muntaxa diglee da ngaa lànk doo ko def lii rek mooy li weesu ci jamono yi kon lii laa nan la Sëriñ Tuubaa bi mu koy ñaan yàggoon na lool waaye dafa mel ni moom tariwaat am njàngam sax a tax yii fi xew di fi xew maanaam tariwaat xasida moo tax mu ma def nii wa man faxan li kulli li kulli haadin nanga ko def muy ab njariñ loo xam ne ñeen na képp koo xam ne bëgg nga jub ba noppi di ab murit wa man faan di njariñ loo xam ne xan kulli haadin ci bépp aji noonu mu jërimi koo xam ne daan yow noonu dëkk bi nga wala ni dëkk bi doxee neexu la yàlla waaw na nga ko nan nga ko na ko jañ ma ne waxajatan nga def ko muy ak aj nga def ko muy aw yiw ci képp koo xam ne liman ñel képp koo xam ne irtadaal làmbaayoo na bi don fin ci doyadi goo xam ne xamul war may dëkk bi xamul capacité bi dëkk bi am ci war may dëkk bi amul capacité bi war war may dëkk bi am maanaam daa daa waya falal tiyaabay dëkk bi daa waya falul dooley dëkk bi ci jaamu sun borom ak li sëñ bi ñaan te yàlla nangu lépp moom xamewu ko noonu maanaam wa wa junnatar nga def ko muy awlay maanaam woo xam ne alaa mu xaalifi xaddaa ñi nga xam ne damaa wuuteeg ñoom gis-gis bokkuñu ay tariixa xëy nañu dëkkale dëkk bi feneen nga defal leen nga def nga def nga defal leen mu nekk si maanaam muy aw lay muy seenu lay maanaam ñi nga xam ne dañoo dëddu dëkk bi te xamuñu njariñ li dëkk bi am muy seen maanaam dëdd googu ñu dëkk dëddu dëkk bi wëlbati ko di seenu lay ëllëg yomal xiyaam kon loolu la sëriñ bi ñaan fii maanaam mu mat laban nga def ko càkku càkkuteef li taaxati rahimi maanaam ku nam ma jëm ci yàlla sun borom koo xam ne da nga nam ma topp yàlla sun borom nga def ko muy maanaam càkkuteefi ku nam ma tap topp sun borom waa maharaban nga def ko dawukaay boo xam ne min taaxati rajimi ku nam ma topp saytaane koo xam ne moom saytaane rek ko tax a jóg mbirum saytaane rek ko tax a jóg na nga def dëkk bi ku ci nekk rek mu mel ne lu lay féewaleeg loolu nanga ko def mu nekk dëkku ba maslakan dëkkub sóobuwaay li suba li subb li tibaaxi maanaam dëkk boo xam ne dañuy maanaam topp yoonu sunnay Seydina Muhammad maanaam buñ ñu topp lenn lu dul yoonu sunna Seydina Muhammad wa matrakan nga def ko muy ab maanaam bàyyiwukaay li subbali tibaaxi topp yoonu yoon wu jëm ci ay caaxaan wala yoonu biddaa wa maskanan nga def ko muy ab dëkk boo xam ne li jël bi kulli xëyri dafay ñod yiwu man di doon da koy ñod di ko indi ci dëkk bi waaye lii nag bi ki sëriñ Tuubaa ñaan ku bëgg jàmm ci bokk maanaam koo xam ne li muy ñaan yow da nga jël objectif ànd ak moom ñaan gi hmm. yow yaay bokk ci ñaan gi waaye koo xam ne bàyyi waxel ñaan gi bàyyi waxel téere bi bokk ci ñaan hmm. ñu bàyyi ko xel ñaan gi bi ko sëriñ Tuubaa ñaan borom ndab lu set la borom ndab lu set ko koy tax a ñaan koo xam ne sa ah. ndab set wicc te am nga yéene ju toll ne jim am ci dëkk bi nee na wa maskan nga def ko dëkk boo xam ne dafi kulli xayri kulli dayri day jañ bépp lor wa sababan li fatti xayri xëy bi maanaam nga def ko sabab boo xam ne day ubbi bépp xëy bu maanaam maanaam ubbikaayu xëy bu maanaam dëkku leer la dëkk boo xam ne mooy li ñu doon waxtaane léegi ci njëlbeen gi mm-hmm. bu nit ki sàkku ngir xam xëy bu xam xëy mooy dimension la boo xam ne boo boo dee am leer rek da ngay xam xëy bu moom la Sëñ Tuubaa yi wax ni alamtanil xëy ba ata surtout muntabihan maanaam xay bi moom da nga ma ko wuññil ba mu mujj di lu leer ci man amatuma xay bu ci sama diggante yow nee na wa sababan nga def ko sabab li dafi dayri xay bi maanaam maanaam yàlla na ko def muy muy jañ lori maanaam na ko def jañ lori sikk wàcc xal yàlla na ko def arduhu suufam ci muy suuf su wërsëg suuf soo xam ne commerçant yi fi nekk ak ñi nga xam ne ñi ngi ci biir dëkk bi ak ñi nga xamante si ni tamit maanaam yàgg nañ fi xam nañ njariñ bi dëkk bi am ak xam nañ wërsëg bi ñu fi amee maanaam wa aman ak mu nga def ko dëkk bu am sécurité wa rahmatan wa rahmatan nga def ko muy dëkk bi yërmande dëkk boo xam ne ku fi tàbbi ñu yërëm la ak dëkk boo xam ne dëkk wa saxatin ak dëkku bu yaatu ku la awaam foo mën a jógee rek mu nekk dëkk dëkk boo xam ne dëkk dëkk bu yaatu lay doon yaa daafial azwa yow mi nga xam ne yaay aji jañ lépp luy dox maanaam lépp asbaa yi booy mooy lépp loo xam ne day dox daan ci suuf te nekk loo xam ne mën naa matt ba lore moom lañ tuddee asbaa yi wal akdaar yow mi nga xam ne yaay jañ loolu ah, wal akdaar yi ak nax-nax yi iddi fax yàlla na ñu jañal ku la soo lépp lu ñëw xandaari ci sama dëkk bi bi bil Moustapha te ci daraje Seydina Muhammad kon loolu loolu mooy ñaan gi nga xam ne ñaan na ko ci ci barab bi xëy na bu ci kanamee ñuy ñëw ci ñaan gi nga xam ne ñaan na ko ñi tabax jumaa ji wax fir liman bi naw bi naa rafi wax fir liman amarahum biha jami yàlla maa ngi lay ñaan kat nga jéggal mboolem ñi tabax jumaa ji ak wax fir liman amarahum ñi leen ko digal ñu tabax ko yàlla nga leen jéggal maanaam lii nag ba mu koy wax mu ngi jàkkaarloog lépp mooy dafa am solo ci doomu aadama mm. maanaam moom la doon wax ni maanaam aayan turib yi maanaam bi may bi may bi may bi may ñaan yàlla suñu borom maanaam li ma ko doon ñaan lépp mi ngi doon leer ci sama bët xamal naan yàgg-yàgg dina ñëw aayan trëp hmm, moom lay wax ni rabbi yusaf yi fikri rek rabbi yusaf yi fikri maanaam yàlla sama xalaat ak sama xel wa sakki lubbi maanaam waaw maanaam yàlla dafa sellal sama gis-gis xam nga dimension xasida gi leer la toujours ci lay wax ni leer la moom bi mu bind xasida gi ci dimension bi mu tolloon dimension leer la moo tax ku naam nam ma jariñu dëgg mooy ànd ak sëñ Tuubaa dëkk bi ci nii mu tëggi xasida gi xaw ma nag ku nam ta jariñu kon loolu da waxaat fii tamit wal taj xalan xaa waaw yàlla na ko def moo xam ne dëkk boo xam ne saatal limtihaa day fees dell nooran ci leer mooy liñ doon waxtaane sànq ah. wa rahmatan ak yërëm bi leen ci lu ab ab wa risqaha wacc xal risqaha yàlla na nga def wërsëg muy dëkk bi wërsëg bi at yaba xalal mooy dëkk bi ñuy gën a sàkk lu lew ci àddina kas bu xalaal talabul xalaal rek mooy mooy sàkk lu lew fil xusri wal yusri ala tawali ci toftaloo maanaam maanaam dëkk bi fi ni bu jafee dañuy dox bu tàngee dañuy maanaam dañuy dox maanaam léeg-léeg dëkk bi ñaan dëkk bi daa metti waaye mu rite sëñ tubaay duñ ko yëg waa dëkk bi duñ ko yëg ndax sëriñ bi moo ñaan wërsëg wi di fi dollee ko waxtu wu nekk kon ñu bàyyi xel sëriñ bi ni mbiram a ngi noonu kon daal loolu mooy li nga xam ne. macha allah moom moom mooy dañ tabbee rek ci laaj boobu. jërëjëf ñi seetaan. sëñ ji lay moom lañ dalaloon dalaloon tey. macha allah wax dëgg yàlla leer na nañ dafa am benn laaj boo xam ne moom laa bëgg a mujjee bala ñoo tàggoo. mooy ban yitte. la nit ñi war a jox xasida ak Matlabul Fawzayni. waaw yitte yitte ji nit ñi war a jox moom maanaam mooy li doon waxtaanee sànq. mooy farlu farlu ci xasiiday sëriñ bi waxoon naa ko ci yoon yi la ñu weesu mooy li lay jariñ nga xam ko te nekk ca te xam niñ ci jariñoo fexe raxas sa bopp ba nga ba sa wicc ci mboolem ay taq-taq ak mboolem ay tilim-tilim hmm. te lépp loo xam ne sëriñ bi da ko bañ ci dëkk bii nga wattandiku ko bu baax comme niñ ko waxee ci li jàll lépp loo xam ne sëñ bi digle na ko te nga man ko sa kemti lay kàttan nga nekk ci mm-hmm. yitte yi xasida yëpp war nañu leen a jox yitte waaye bii di mat la bu faw sëy ni nag nit ki war na koo jàng war na ko mokkal war na ko mën a firil boppam ba xam bu ko defee rek moom mooy garanti boppam ndax xasida gi dana ko yar dana ko teg ci yoon war a tegu mm-hmm. waaye mag a ko bind bind ko ci dëkk bu mag muy xasida gu mag mag a ko bind mm-hmm. bind ko ci dëkk bu mag mm. muy xasida gu mag waaw kon boroom xel mu mag képp moo ko moo ci mën a jariñ ñu bàyyi xel loolu baax a baax a baax a baax xam naa ne képp koo xam ne warumaaloo dëkk bi lu ne mën na la dara ndax sëñ bi ñaan na ko fii bu noppi te ñaan ki du dañ abadan kon ñu bàyyi xel bu baax sëriñ bi xasida gi lu ko ñor la dëkkam bi lu ko ñor la ñu def ci yitte bu baax te murit bu nekk foo mën a nekk nga yittewoo jàng xasida gi ba noppi say doom ak say soxna ak mbooloo ma nga jiiteeg nga fexe kenn ku ci nekk mokkal xasida gi di ko jàng su ko jàngee ba mu leer nañ la mokkal na ko nga firil ko ko ba mu xam ne ci Sëriñ Tuubaa di wax loolu moom kenn ku nekk murit bu nekk war nga ko yóbbaale ñi nga xam ne dañoo nekk ci bitim réew te yor fa ay ay ay mboot ay ay ay ay ay mbooloo ndigal lii sëñ Muntaxa joxe dafa bokk ci seeni ndigal rek ndax bari nañ ndigal yu ñuy jot yoo xam ne yii ci la bokk nañu war a yaatale li ñu war a yaatale ndigal yooyu noonu la ñu war a yaatale ndigal yii muy fexe ba xam ne sëñ bi nag mbiram daara da cee bokk mbiram am njàng da cee bokk ginnaaw bu tàngal kafe jotee leneen jot leneen jot yëpp nañu xam ne jàng daa bokk ci mbiri sëñ Tuubaa ñu boole ko ci hmm. <coughs> ñu boole ci jàng nag maanaam jàng tey jàngale xam ne sëñ bi ñoroon na ko lool te xasida gi li ci ëpp jàng jàngale la ak comportement su ko defee loolee tamit ndimbal la ci képp koo xam ne danga ne woon sama xëy na mënatumaa jàng ndax mag la wala liggéey tënk na bu leen ndigal li dabee ndigalu suñ mun taxaale amatoo sañ-sañu nigli sa ndigal li. waaw dëgg la. kon nag ñu bàyyi ko xel bu baax sëriñ bi dafa wax ni maa ngi sant yàlla bu baax moom mi nga xam ne mooy aju tedd ji moom mi nga xam ne mooy borom xéewal yi moom mi nga xam ne alastixaal yi soxlawuma lenn sama soxlawoo sama yittewoo ci farata yàlla sunu borom yi rek la. ak sunna Seydina Muhammad yi. maa ngi koy sant bu baax moom mi nga xam ne maanaam xat saaxa ni màng na ma li waxtaanee ñeel jëm ci dëkk boo xam ne maanaam nafa dàqonte naa man maa xàq ni lu may gàllankoor ci dëkk ba bi ci moom. waxaat li mu wammat ma tamit bi taxali ci takkaay yu rafet illee jëmmi ma ci dëkk ba. min baax di ma azaba ginnaaw ba mu sellalee ginnaaw ba mu ma rafetalee taxali raxasal ma mboolem jikko yu bon mboolem jikko yu bon yi nit di làmbo wa jërë nii mu ñoddi ma i dal xuloo mi jëme ma ci xam-xam fii ci dëkk bi wal faw si ak texe bil amali ak ci jëfe bil mi ci jëfe xam-xam bu ñu bu bu ñu bu ñu xam bil bil maxloo mi ci xam-xam ak wal amali ak jëfe xam-xam ba ndax maanaam isil amal in lam in lam yakun bil ilmi saabahu in lam yakun bil ilmi al ilmu wal amali li xayri daarin yajibaani yàlla maa ngi lay ñaan maa ngi suma salaatu topp dollee teral bi salaam dollee wóolu tabihaas goo xam ne topp na Seydina Muhammad ala lës yàlla nekk ci ka nga xam ne xas di sama jublu an tabiha mooy ma topp ko ala lës yàlla nekk ci ka nga xam ne ci Seydina Muhammad xalal la ci Seydina Muhammad ma nga xam ne man képp koo xam ne iqtidaa roy na bi muraadihi ci namelam nga fi sirri ci lu feeñ wal jahri ak lu nëbb yàkkun dana nekk muqtadan di ko ñu ko ñu roy mu ngi muy melal Seydina Muhammad huwa mooy ki nga xam ne allazi mooy ki moom allazi mooy ki nga xam ne haajara gàdday na lil madina jëm madina bi am rabbi ci ndigalul borom fasaana ñoŋal na rafetalal na diina diina diina hoo diinam ja wasilati mooy sama wasila li maaliki boo xam ne maa ngi ànd ak moom jëm ci yàlla arrafi kay aji yëkkatiku bu la neexee nga yóbbu ko ci Seydina Muhammad bu la neexee nga yóbbu ko ci yàlla boo waxee nga ne wasilati arrafi wala li maaliki arrafi Muhammad mooy Seydina Muhammad xayrir wala mooy ngën gi mindeef astafi ma ajaram ji waaye léegi ñu wasan bi ak san ba am nu jóomi ña di biddiw alqaahiri nufuusi ña di way not seeni i bakkan wa rajimi ak kon jëm ka ansa yëgal ni wa inni naka man al yow mu tey yaa laa ahabu du ma ragal xayru ko kudul yow ci àddina fi daari ci ñaari kër yi laa ahabu du ma ragal xayru ko kudul yow àddina ak alaxira du ma ragal kudul yow wa inna nii naka man ya barru yow aji baax ji yaa karimu yow aji tedd ji daahin aji aji aji ñaan laa mm. wala arimu duma dañ mukk xan sukkari ko di la sant mun ci jazabte nii bi nga ma diirub bijj nga ma jëm ma ci sa bopp léegi jëm ma ci yow yaa muhin yow kii dimbale xinaayatan ngir jagleel ngir ngir ak jagleel da nga maa jagleel ñoddi gi nga may ñoddi ak jagleel seen laa ci am maanaam ilayka jëm ci yow ilayka jëm ci ilaya jëm ci ilaya ci man maanaam xinaayatan ak jagleel goo xam ne ilaya dafa jëm ci man min ka tukkee ci yow li tox ni ngir nga dimbali ma rek mu ne fa xumtu jóg naa nag mac sooban di ku ñu ñoddi di ku ñu ñoddi bi ci sa ci sa kattan bi ci sa kattan fii dafay jëfandikoo ay xarafu jar yu bari dafa wax ni fa xumtu majsuuban ilayka minka bika alayka waridtu anka da ci <laughs> jëfandikoo ay xarafu jar yu bari waaye dafa wax fii danga koy xaddam da ngay wax naan fa xumtu jóg naa majsuuban di ku ñu ñoddi bika ci sa kàttan alayka jëm ci yow minka bàyyikoo ko ci yow ilayka jëmaat ci yow waraditu gërëm naa la lool xanka ci yow mu fawidan sama mbir yëpp jooyal naa ko ci yow léegi jëm si yow mu musalliman may aji jébbalu amri sama mbir yëpp mu haajiran may gàddaay nag mu haajiran may aji gàddaay li ma ñeel lépp loo xam ne la dekk mi ngi fi yow maanaam gàddaay naa sama lépp gàddaay naa ko jëm ci yow su ma topp xat surtout may dox léegi jëm ci yow suma topp lépp su ma topp xat surtout dox naa léegi jëm si laa ilaa siwaaka du ma jëm ci kudul yow lamaa lam ajjit ginnaaw lamaa lam ajjit mosuma gis mosuma fekk sarwaaka sa ndend ci lem kon dan fa juttu jóg naa wala fa juttu tabe na lii ñeel ma al yow ma tey bi xëy mi na ni ci ngën gi mbind ci ngën gi xéewal wa xutali wamat na ma ilextifa di sunna ni jëm ci sunna Seydina Muhammad <laughs> dan loolu mooy <laughs> cebul bi waaw mm-hmm. kon képp koo xam ne yaa ngi doon seetaan wala ngay déglu ci rajo bi mm-hmm. ñi ngi woon fii ci Mbacke baari dalaloon Serigne Djili Matilay bu Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke di ñaan suñu borom bàyyi ko xelam ak kattanam ah, may ko jabar gu barkeel yokk xam-xamam ñi ngi ñaan képp koo xam ne déglu nga émission bi li ciy njariñ ñëw ci yow li ciy loraange bu mu egg ci yow mukk diirub jamono kon ñoo ngi leen di jox dig daje ba beneen jataay ci xes dag Matlabul Fawzayni wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu حمدا لمن يفعل كل ما أراد بقوله كن فيكون في المراد حمدا لمن يفعل كل ما